ñu ngi ci bennoo ñu laaj ma nag lu yomb ba pare jafe yomb na ndax day dëgg jafe na ndax daa bari muy les dynamiques de victoire muy nuyu may nuyu presse bi d'abord et ça c'est important yàlla dafa def président di doomu réew mi au sens le plus profond mooy juddo ci réew mi màgge ci réew mi tekkee ci réew mi ça c'est important am ay jaar-jaar yu bari duma ñëw ci parcours am politique mais mën naa wax ci li nga xam ne def na ko 2012 ba tey ji et plus précisément entre 2014 boo xam ni tournant la et pourquoi 2014 di nekk tournant dinañu may aussi ñu mën a wax ci rôle walla place bi ñu war a jox élection ci réew mu mel ni Sénégal bu nekkee da koy tabax xam nga booy tabax fo loo xam ni da ngay dëkk ci biir te doo toxu danga nga ciy demee xel ak xam-xam bu dul loolu am na ñoo xam ne li ñu lay proposé mooy na ngay dañ toj kër gi ñu commencé waat tabax mooy li opposition bi di wax xam nga ni loolu mënut a nekk te loolu warut nekk c'est pas un discours responsable bi sénégalais yi fale président ci yoonu yokkute daf ko mettre en œuvre à partir de 2012 mais le président a un fort penchant social mesure bi mu njëkk a jël c'était déjà en 2013 dafa ne dama fekk réew mi ci anam bu jafe lañ koy nattee mooy réew mi amul amuloon croissance ci jamono jooju wala boog 2011 ni nit ñi doon yokkoo moo ëppoon ni koom-koomu réew mi doon yokkoo donc une croissance faible 1,7 pour cent mu fekk fii inflation mooy njëg yi di yokk dinañ ñëwaat ci problème mu njëg yi léegi nii mu fekk fii li ñuy wax déficit budgétaire déficit budgétaire maanaam mooy na ngay dundee amoo ko xam-xam nag nangu na ko attention mën nga am di dundee loo xam ne amoo ko mais dañ koy am nañ koy organiser mais dafa am fu mu war a yem mais boobu li amoon dafa jéggi woon dayoo loolu la fekk mi ne li may njëkk a def d'abord mooy ñiy liggéey mu yokk seen payoor nañ koy yokkee mooy ma wàññi seen impôt pour la première fois en 2013 amul salarié bu nekk Sénégal te sa salaire yokkuwul ñëpp sans exception loolu 2013 la boobu réew mi mënu ko woon amu ko woon mi ne intrant yi maanaam li ñuy bayee semence yi naa ko yombal lool joxe ci lu baree bari réew mi nag mu teg ko ci yoon ñu changer beaucoup de règles de gouvernance mu ñëw ba 2014 mi ne man damay andi lu bees mooy plan Sénégal émergent ci gàttal li mu bëgg et ça c'est important yéen ñëpp da ngeen ko war a noter dafa jéggi boppam xam ni réew bu ñu koy tabax da ngay am yéene nga ne foog ma def fi loo xamante ni samay doom samay sët samay sëtaat ñooñu seeni sët ñoo koy jariñoo mi ne nañu tàmbalee benn plan boo xam ni ci ñaar fukki at muy génération parce ñaar fukki at mooy benn génération dinañu fexe ba xar kanamu réew mi soppeeku mais nañu fexe ba ñëpp d'accord ci et ça c'est important parce que bëgg naa ngeen ñu noté loolu gis nga plan bi bi mu koy def képp koo xam ne am nga xam-xamu koom-koom ci réew mi président neen nañ dem ba ci yow universitaire yëpp bind nañ leen seeti leen ku fi mësoon nekk premier ministre bind nañ la wax la ku fi mësoon nekk ministre des finance wax nañ la parti politique yëpp opposition comme pouvoir ñoom ñëpp saisir nañ leen société civile saisir nañ leen syndicat liggéeykat comme syndicat ou patron ñëpp saisir nañ leen muy élément déjà buy wane prise en charge bi mu bëggoon ñu am mu am ko pour lépp lu askan bi di xalaat lépp lu borom xam-xam yi di xalaat mais aussi cette politique d'inclusion bi nga xam ni moo nekk à la base de Benno justification économique bi pour man lool li may wax ni c'était en fin 2013 jëm 2014 ñoom ñëpp ñiy critiquer plan bi tey ñi doon wax baaxul ak ñoom ñëpp saisir nañ leen ñii tontu nañu ñii tontuwuñu mais amul kenn koo xam ni président waxul woon nañu wax ak yow amul yenn kilifa diine yi sax demoon nañ ba ci ñoom ñu saisir toute la communauté internationale fépp foo xam ne dañ fay wax waxi koom-koom ak réew yoo xam ni def nañu dara réussir ko wala def nañ dara échoué ko peu importe ñi ëpp ci ñoom seeti nañ la banque mondiale FMI union européenne BAD BID OCDE ñoom ñëpp seeti nañ leen ñëpp institutions yi ngeen dégg yëpp américains yi ñoom ñëpp seeti nañ leen bi ñu paree loolu yëpp ñu tënk ko ci benn téere président moom mi nga xam ne mooy définir la politique de la nation jël ko ne léegi voilà fi Sénégal war a jaar ci ñaar fukki at yi kon ñu ñëpp waxtaane woon nañ ko boobu li commencé après sunu budget tout comme képp koo xam ni da ngay dimbali Sénégal ci loolu ngay tënku par force donc bu ma déggee tey ay débat même sur la souveraineté sur l'indépendance euh, man daf may jaaxal personnellement en tant que technicien parce que c'est des questions qui ont été réglées et par le président te dinaa ci ñëwaat léegi avec des justifications yoo xam ni boo demee ci budget bi di nga xam ni Sénégal moo yor boppam ku Sénégal traiteel daf ko neex lu Sénégal joxe daf ko neex parce que intérêt ak njariñam daf ci nekk ñu ne nag plan Sénégal émergent ñetti tànk la transformation structurelle de l'économie mooy axe un capital humain développement lépp lu jëm ci nit axe deux gouvernance paix et sécurité axe trois El Hadj Kassé wax na ci léegi fu jàmm amul fu justice amul fu nit ñi wérul fu nit ñi xale yi dul jàng développement mënu fa am biñ ko defee axe bu nekk mu am luñ ko affecté en moyenne transformation structurelle de l'économie 65 pour cent euh, euh, axe 2 bi pour cent axe bi 10 pour cent loolu moo may Sénégal performance yi nga xam ni président réalisé na ko entre 2014 ba tey jii ñuy wax ak yéen ci wàllu croissance ndax croissance dañuy nattee réew yëpp croissance mooy li yokk ci alalu réew mi juróomi at yi ñu mettre en œuvre plan bi alalu réew mi doon na yokku en moyenne de 6,6 pour cent bokk ci croissance yi gën a élevé croissance yi gën a régulière ci àdduna bi en Afrique on était yenn saa yi deuxième mais en termes de régularité xëy na sunu croissance moom moo gënoon a dëgër pour la première fois li Sénégal waxoon ak communauté internationale président exposé ko parce que dañoo valider le PSE sénégalais yëpp toog ba ñu ma ñu vaar ma dama bëgg ñu jëliwaat les discours de 2014 la mu waxoon lépp la ca ëpp def na ko lañ ci deful tàmbali nañ ko ba mu sori te lu ci nekk mën nañ joxe justification lam moo tax amul loolu moo ñu may performance yi nga xam ne am nañ ko entre mille 2014 ak mille 2018 ba nga xam ni boo xoolee li fi ubbi ci chantier li ñu fi def sax ay chantier sax mooy li ñuy xool mais dinañ ci ñëwaat léegi li ñu def ci terre bi Ila Touba xam nga ni Ila Touba bi ñu koy tàmbali ci la ñu tàmbali terre bi Ila Touba doon tourner autour de 400 milliards terre bi on tournait au départ sur 500 600 milliards gis ngeen réew bu day ni Sénégal tàmbali benn programme yoo xam ne boo ci jukkee ñaar rek boo ci jukkee ñaar rek daanaka muy mille milliards cohérence plan bi la kóolute gi ñu am ci réew mi la mais cohérence plan bi ak kóolute bi ñu am ci réew mi li tax mu am mooy vision bi nga xam ni président am na ko gouvernement bi di ko exécuter sur le terrain bëggoon naa nag ci campagne électorale la ñu nekk terre bi bi ñu koy commencé la presse est xam ngeen ni ñu bari d'accord ci woon ñu ngi ko doon critiquer matin midi soir bëgg naa it ci caravane yi fi terre bi di jaar ñu jaaraat fa nee leen ou dañoo juumoon wala boog lañ doon wax <laughs> <laughs> wala boog lañ doon wax wala boog lañ doon wax dañ doon yàq rek parce que defe naa ni tey jii ku jógee fii ci gaar bu mag bi jëm jam ñaajo romb Pikine bien sûr di nga romb Colobane ak Yaraax nag ci biir département bi dem département de Pikine dem Rufisque dem Kër Massar ndax di nga ko contourner jëm jam ñaajo gawuma ni kenn ñeme naa jaar ci commune yooyu nee leen di TER bi amul njariñ ce débat a bien existe au Sénégal animé par l'opposition ba bi ñu koy inauguré c'est cent dix mille personnes ñoom ñoo koy jël tous les jours autoroute yi 33 kilomètres la fekk yokk ci presque 219 kilomètres te fi ñuy wax ni mi ngi wax projet d'autoroute bi jëm Kaolack mi ngi wax projet d'autoroute bi jëm Saint-Louis fi ñuy wax ni bi jëm Kaolack liggéey bi tàmbali na waaye xam ngeen ni tey dem mbuur yomb na nag dëgg-dëgg en 2011 ou 2012 bi président doog a ñëw ci hivernage boobu am na ay touristes y amoon na inondation bu mag ci la président jëlee woon décision wu ñu supprimer Sénat bi mu am ñu jóge France atterrir Dakar jóge Dakar di dem sali ma am ci benn xarit boobu j'étais aux impôts mi ne ma li ma def diggante Dakar ak sali deux fois la diggante Paris ak Dakar waaw deux fii la jóge nawet am muy dem euh, euh, Saly ñëwoon pour noppalu si yegg fi vingt heures ci suba sa la yegg xam nga loolu tey kuy dem Mbuur boo amee am embouteillage daal diggante gaar ba la ak pompier mais boo xasee ba dugg ci autoroute bi jeex na mais liggéey bi du ay infrastructure rek justement du ay pont ay tali c'est utile ku ne xale yi wala ku ne pro dik nit dinaa fexe réew mi dox dinaa fexe koom-koom bi yokku dinaa fexe ngeen am liggéey te mënu laa la nga jógee Guédiawaye ñëw dakaar wala nga jóge dem jógee Dakar dem Thiès naxaate yi ñoo ëpp na président ne man nag am na ñoo xam dañoo sonn dëgg la war nañoo yokk opito yi defar na ci juróom-ñeent war nañoo yokk centre de santé yi defar na ci dix-huit war nañoo yokk poste de santé yi y en a à peu six cents mais loolu day ànd ak ngay recruter ay nit day ànd ak nga di ko entretenir loolu yëpp réew mi def na ko ci fukki at yi weesu ci nguuru président Macky Sall mu ne gis naa ni bu ñu demee ci hôpitaux yi am na ñoo xam ni mënuñu am accès loolu moo andi couverture maladie universelle ñu ne damay fexe au moins ba soixante quinze pour cent de la population mën a am couverture bu leen ma laaj fi mu ko fekkoon fi mu ko fekkoon motul woon pour cent mu ne jigéen ñi foog ma dimbali leen césarienne kenn du ko fay dialyse defe naa ne benn centre de dialyse mu amoon Sénégal léegi defe naa ne région yëpp am nañ ko ci biir région yi ci biir région yi am na ay département yu ko commencé am xam nga dara mën naa bañ a mot mais reconnaître jéego yi ñu def dafa jaadu gis nga PUDC la ko andi mooy sakkanal askan xaalisu askan bi de départ président dafa wër Sénégal ñaari yoon bi muy sàkku bi muy ut ñaari yoon il a fait deux fois le tour du pays muy à près quatre-vingt mille kilomètres mi ne ñi mu doon àndal xam naa kase ci la bokk xam na bu baax li may wax <laughs> mi ne leen damaa bëgg fi ma jaaroon lépp lu ma fi mës a wax ngeen andil ma ko mu woo gouvernement bi yëpp ne leen damaa bëgg la nga xam ne waxoon naa ko ngeen tànn ci ñeent ñu exécuté ko mu gën a gaawee benn bi mu ne man dama yërëm soxna yi dama bëgg seen liggéey ñu wàññi coono bi mooy ay dëbb ak ay yu yu ay root ak yu mel noonu mi lépp luy wàññi seen coono dañ ko def mi ne biir àll bi déplacement yi dafa jafe yi nga gis benn communauté rural entre de villages dem ko jafe lool boo takkee charrette sax am na jamono yoo xam ni saret bi day ngiiroo du mën a dem loolu moo tax ci cinq ans yi mujj c'est plus de six mille kilomètres de piste le président de defar ci biir PUDC mi ne dama bëgg électrification rurale mooy troisième bi daal ma ñëw rek quatre laa wax maa ngi ñëw <laughs> ñu ne électrification rurale man 20 pour cent laa fekk ci Sénégal j'ai un objectif de 100 pour cent en 2024 fi ñuy waxee ni mi ngi ci plus de 60 pour cent grâce au PUDC et au PUMA mi ne des na ndox mi fekk forage yu bëri par dëkk yu bëri surtout dans le Djéri et le Ferlo amuloon ndox au moins ci benn année bi defar doon na plus de deux cent cinquante forages nous sommes un pays souverain politiquement nous sommes un pays souverain économiquement nous décidons de nos projets, de nos programmes. Le président définit la politique et le gouvernement met en œuvre sans aucune contrainte pouvant venir de l'extérieur. mais anecdote de mu bëgg a joxe lan la dama dajale ay bailleurs di utali mi xaalis ñu ñëw toog j'étais avec toute l'équipe du ministère des finances de la banque centrale ñëpp toog xam nga booy def euh, tournée yooyu da ngay da bàkk sa réew jaay ko sama réew lii am na fii lii am na fi lii am na fii wax li nekk ci réew mi tout temps sachant que ñi ngi koy waxal xam nañ ko mais yow da ngay wax ma wax ci lépp cadre macro wax ci endettement déficit budgétaire wax ci projet yi wax lépp lépp ba pare ndekete dañ ci glissé woon benn phrase bu am solo mooy le Sénégal a été dirigé par un président non musulman pendant 20 ans. C'est une vérité. Nous avons présentation réunie. bi ñu paree ñu def seeni soumission la ñu soxla woon ñu jox ñu ko presque dix fois plus moom kenn koo xam ni li ñu ko dénk ci alal mënoo ko mënoo ko soppi daanaka sunu xaalis dafa mel ni sunu xaalis rek ay milliards nga ciy wàññi ay junne junne junne moom loolu lañ ko dénk mu ñëw ne ma man li ngeen soxla mën naa leen ko jox mais dafa am li nga wax dafa am lu ma frappé ci Sénégal man moo tax ma fay def xaalis je investir au Sénégal pour 30 ans ma ne ko 30 ans mi ne ma waaw mi dama leen di jox tey ngeen fay ma dans 30 ans waaw ah bon mi waaw ma ne ko mais lu tax man maa ngi xalaat bu may wax noo am ngeen pétrole wala gaz wala seen cadre macro wala nangam nga man foofu laa ko xalaata mi ma non ne ma ñi toog fii bi ma yónnee liste délégation dama laajte xaw ma réew ñu ne ma ñii Juuf la sant ñii Njaay ñii Ba ñii nangam ak nangam ñu ne ma j'ai compris que Sénégal amul ay problème mu ethnique waa ji waa ji mooy wax de am na ay musulman am na ay non musulman mi ne parce que am na ay réewu Afrique yoo xam ne bu ñu fi ñëwee boo déggee ñi ñi andi boo déggee sant yi rek xam ne ay mbokk lañu waa ji mooy wax de cest dire da xool ñoom fi ñuy gëstoo mi ne ma surtout j'ai été marqué par le fait qu'un non-musulman puisse diriger un pays à 95% de musulmans pendant 20 ans kenn musu faa dégg coow ma xam ni richesse bi ñu am ci jàmm richesse bi ñu am ci mbokkoo lépp lu mu jar war nañ ko jënd dama ne loolu richesse boobu may na Sénégal ay milliards ci lu mu dund